mbokki ahbaabu cheikhil islam maa ngi nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan borom bi tabaraka wa mu boole ñu defal tawfiq ñu fas yéene ànd ak yéen tafsiru quran al karim tey nag ñu jël saar wu am solo muy suuratu Quraysh suuratu Quraysh benn la ci saar yi nga xam ni kojak Makka lañ bi maana Makkatal Mukarram ci la ko yàlla wàcce ci yonantu bi sallallahu alayhi wa saar wi nag boo koy wër mi ngi ci fanweereelu juz'u ci kaamil bi ñeenti aaya la boroom xam yi wax nañ ni saar wi dafa am lien bu rëy ak saar wi ko jiitu maanaam saar wi topp ci moom ci buñ jëmee ci kaw muy suratul fiili wax nañ ni dafa ñëw sax ngir mottali la saar woowu bàyyi woon mi ngi wàcc nag ginnaaw wàccub suuratu tiin booy wër saar wi ci kaamil bi di nga fekk ni mooy téeméeréeru saar ak juróom benn ci ni ñu toftalee saaru alquraan yi li ko tax wàcc wala boog lu tax ñu tuddee saar bi Quraysh boroom xam-xam yi wax nañ ni tuddee nañ saar wi Quraysh ndax dañoo jàpp ni tur woowu maanaam تعتبر الصورة الوحيدة في القرآن التي تحتوي على كلمة قريش ndax saar wi mooy benn saar ci saaru alquraan yi boo xam ne làmboona baat bii baatu quraysh moo tax ñu ne saar wi mënta am beneen tur bu dul ci jamono yonent bi sallallahu wa sallam sax daan nañ tuddee saar wi li ilaa fi loolu ñenn ci mufassiruna yi tudd nañ ko indi ko ci seen téere kom ni nekkee ci téere yi tafsir yi ala kulli li tax saar bi wàcc analu ko tax wàcc bokk na ci sabab yi nga xam ne ñoo tax saar bi wàcc suñ boroom subhaanahu wa taala dafay fàttali Quraysh di leen xamal ni defal na leen jegleel na leen yiw wu baree bari na leen itamit ay màndarga yu baree bari te seeni màndarga yooyu ñoofi des ba keroog péncam yàlla dara du suul lu mel ni koddaay bi ñuy koddaayee kaaba gi siqaayatal xaaj ñi nga xam ne alquran jàngale na ajaaltum siqaayatal xaaj yi wa imaratal masjidil xaraami maanaam ñu seetale leen nandal ñi ñëw ji ak ci Makka ni ki noonu yàlla jagleloon na leen ñu mucc ci abrahatul ashram ñi ñëwoon ngir màbb kaaba gi niki eh, nga xam ne yàlla toroxal na ko moom ak armeem bi àndoon ñëw ngir màbb kaaba gi bokk na ci jagle yi leen yàlla jagleel ci jamono jooju ci la yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom beneen jagle la buñ yónnee mbindee fi yépp waaye mu bokk ci Quraysh moo tax yonantu bi alayhi salaatu wassalaam wax na ni suñ borom subhaanahu wa taala dafa gënale Quraysh ci juróom ñaari mbir yoo xam ne joxut ko kenn ci ko jiitu te ko jox keneen itamit ci ginnaaw mu yàlla dafa jël xilaafaam wàcc ko ci Quraysh jël li ñu tuddee alxijaaba maanaam liy kaaba gi sut malaan gi ñu suturaale kaaba gi jox leen lu ñuy tudde siqaaya ñuy nàndal ñi aj jox leen nubuwatu yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñoom la bokk dimbali leen bañ musal leen ci abraha ak ay ñayam waaye tamit wa abadu llaha sab'a sinin lam yacbudu ahadun gayruhum ñu jaamu yàlla juróom ñaari at yoo xam ne kenn ku ñoom jaamuwut yàlla ni toll ni ñu toll yàlla wàcce ci ñoom saar tuddu benn tur ci ñooñu nga xam ne ñoo fekkee jamono jooju waaye mu tudd li nga xam ne moom mooy tur ak giir gi yépp muy Quraysh ne li ilaa fi Quraysh muy saar wu am solo am na ñu wax ni ñeenti aaya la am na ñu wax ni juróomi aaya la bokk na ci li ko tax a wàcc yàlla musal gim musal Quraysh ci ak xiif waaye aar Makka ba ab noon du mën ci Makka ndax dafa bokkoon ci aaday <clears throat> arab ya bu ñu demee ba lot amatuñ luñ dundee ndax yàlla dafa leen defoon ñu dëkk ci bërëb boo xam ne amut bay munuñ faa bay mu meññ liñ yaakaaroon dundee mooy lañ am kas néew ci ay jur ak alal ñuy weccee jur yooyu ak luñ dundee ba sax tolloon nañ ci jamono joo xam ne ku dem ba amatoo loo dundee da tëj sa bopp ba keroog ngay dee ba loolu amee nag kenn ci maamu yonantu bi sallallahu alayhi ñu di wax al hashim ñu di ko ibnu abdil manaaf ne seen aada ji aada ju bon la jubleen nekk ay góor nañu teg benn pexe pexe bi mooy ci waxtu shitaa mooy waxtu sedd ñu génn jëm yaman sàkku fa luñ dundee buñ demee ba ci waxtu tàngoor muy sayfu ñu génn dem Shaam sàkku fa luñ dundee ba nekkee loolu ci ay at yàlla dagg benn suuf suñuy wax suuf ak taayif daggee ko fële ci ordon ñëw tegal leen ko ci seen pegg lañ daan wuti yaman diko wuti saam am ci suuf soosu kon yàlla fegal na leen xiif waaye mu fexe ba def ragal ci xolu mboolem ku war a ci kaaba gi ngir màbb ko ci misaal bi mu jox ci abraha ak ñayam ya kon leral na len bañ sifé waye tek na len ci ay mesure yu am solo manam bañu mut bañu bañu nek ci sécurité yonent bi alayhi salatu wassalam dan na wax ni su ma ragalu toon Quraysh mbër mbër lu ngand ngand lu dina len wax sen genel ndax baatu Qurays tur la ci benn jën wu nekk ci géej gi muy jën wi ëpp doole ci géej gi dafay daaneel ay bato di di leen labal noo rëy rëy rëy bato num rëy moom mu daaneel ko dara munu ko tere màbbal bato lu duwut safara lumière safara moom la ragal bu duwut loolu bato bu dajeeg moom dina la màbb ba pare suuxal la te mboolem rab yu nekk géej gi daf ko daan lekk tur woowu lañu tasxiir tuddee ko giir gi nga xam ne mooy giir ak Quraysh imaamu Ahmad soloona xadiis ci masnadam ñu jëlee ci muhammad ibn ibrahim mu wax ni qataadat ibnu nu'man az-zufari waqaa bi qurayshin ka annahu minhum dafa tàbbi ci quraysh mel daf leen a jot maanaam di fër di ŋàññi deru waa Quraysh yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bul ŋàññi Quraysh yow Qataada fa laallaka an tara minhum rijalan amaan na nga ci ñoom ay góor yoo xam ne tasdari amaluk ma amaalihim da ngay xeeb seeni jëf boo ko natteeb sa jëf xeeb seen lépp waaye nag boo leen gisee diñ من لولا أن تطغى قريش لأخبرتهم بالذي لهم عند الله عز وجل بدون تون سمالن وخي سين جنيل آه، دون بيو مانام يونم صلى الله عليه وسلم خمنا ني بولن وخي جنيل لم يبيو من كونون دينا لن ولا ما في دلائل النبوة بو إمام البيحقي من في نتل لمر نونو ne dañoo jëlee ci abi rayxaana al aamiri yi mu ne muawiya dafa wax ibnu abbas ne ko lu tax ñu tuddee quraychu quraysh ibnu abbas ne ko dañ ko ko tuddee ngir benn mala benn rab benn jën bu mag bu nekk ci géej ñu koy wax qursh dara du ko romb noo duuf duuf noo mënta toll lu dul ni lekk na la mu nag bam ko waxee lool ne ko sax الجمحي ويونك أي وين وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا قريش موي ربو لكي جيجي سيدن جلي تروي دي ترو قريش من تأكل الغصة والسمينة ولا تترك منها لزل جناحين ريشا لو رجك لدوفك lépp lay lekk du caagin sax muy bàyyi borom yi mbagg yi borom mbagg maanaam janaaw yi du leen bàyyi sax ab dunq lépp lay lekk ci ñoom hakada fi l xayu qurays mu ne noonu lañ mel nag ci dëkk yi nga xam ne ñooy gàddak qurays yi yakuluuna al bilaada aklan kamifa ñoom dañuy lekk dëkk yi comme na nga xam ne noonu la seen turandoo ba di lekkee mbir yi wala hum axiru zamani nabiyun te ñeen na leen ci mujjeg jamono yonantu woo xam ne yuksirul qatla fihim wal xamusa gis nga kon ñoom seen tur yi fu rëy rëy la jóge pour firi saar wi nag bismillahi irrahmani bismillah maa ngi tàmbalee sama tur maa ngi tàmbalee samay eh, wax ak samay jëf ci tudd turu buur bi muy allah arrahman yàlla mi nga xam ne mooy xéewale mbooleem bindee fii ci àdduna arrahim yàlla mi nga xam ne mooy xéewale ko soob ci àllaaxira e, buur ne falyaabudu nañu jaamu rabba haadal bayti boroom ak néeg jaamu gi nag mooy jaamu sant yàlla nañ taxaw sant yàlla ci xéewal yii ma lim yépp mu defal leen ñoom Quraysh jaamu ko kennal ko bañ ko utal bokkaale ndax yàlla indil na leen dund gu teey waaye tamit indil na leen sécurité القرآن وحنا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين القرآن نه من يونت بي صلى الله عليه وسلم لي ما ديغال موي ما جامو بروم بيغا خامني مو موم دك بي دي مكه يا مو حرمال دك بي تا مو لب digal nañ ma ma jaamu ko waaye digal nañ ma ma doon di ki njëlbeen ci ñi jébbalu ci borom bi kon fal yaabudu nañ jaamu te sant rabb haadal bayt boroom ak néeg gi nga xam ne mooy kaaba gi alladi boroom boobu nga xam ne ataamahum dundal na leen min juin ci seen xiif jële leen ci xiif giñ xiifoon yóbbu leen ci ak suur mooy rek jegeel leen fuñ mën a jëlee luñ dund ndax ku ne xam na ni Makka du bërëb bu ñuy bayee ci yàlla Ibrahim waxoon na ni rabbi inni askantu zurriyati bi waadin gayri zi zarain inda baytikal muharram yow sama borom dëkkale naa sama njaboot ci xur woo xam ne xur la woo xam ne kenn du fa bay xur woowu nag inda baytikal muharram mi ngi nekk fa sa néeg yu ñu xormaal nekk waaye nag rabbana li yuqimu salaa yow yàlla maa ngi ñaan ñuy taxawal julli kon yàlla fegal na leen lool wa amanahum mu musal leen min xawfin ci ragal loolu nag li ko sabab buur ne li ilaa fi quraysin ngir mbaax ak qurays ilaa fihim seen ak mbaax muy seen aada rixlata chitaa yi mooy tukki jëm yaman ci jamonoy chitaa wa sayfi ak tukki jëm shaam ci jamonoy sayfu kon nga gis ni lii yàllaa leen ko yombalal ginnaaw ba nga xamee ni lottoon nañ ci dundal seen bopp ba képp ku ci ñàkk da dem tëdd xaar dee hashim nag ibnu abdil manaaf dindi ci ñoom